quand on a un doute parce que gëmuloo nit ki parce que amuloo confiance ci c'est autre chose mais il s'agit d'un président de la république mais tey Macky Sall waroon na jóg rek ñëw tey taxaw rek ne leen a ah, acca leen de salaamaaleykum maaleykum salaam waaw ah, gis ngeen de tey de nii la nar demee mais quand c'est pas à vous ou à moi ou à quelqu'un d'autre de lui dire ce qu'il doit faire am nga droit am sa xalaat mais quand même ah non <laughs> ba ni à moi ni à toi ni à keneen. Aliou élection moom peuple ko moom non date moom ñun ñoo ko moom. date woote date fan sa wéy temps. waaw mais date bi moom moo koy joxe. <coughs> c'est ce que je suis en train de dire. Oh, date bi waaw du conseil constitutionnel nee na ko je vous invite à non déglu leen ma. waaw conseil constitutionnel nee na ko. Ah. yow bu mu ko waxee lépp. Ah. ba pare nee na ko je vous invite. Ah. à organiser les les élections dans les meilleurs délais. xam nga loolu lu ko wolof di waxee non non déedéet non dama ne. waaw dama la koy tekkil ci wolof. vraiment dama lay bàyyi ko xam nga aussi nangu leen quoi. li mu xew lépp fekk mën nañu am ay doute sax. je suis en phase avec toi. kilifa. dama la koy tekki xam nga loolu ko conseil bi wax. mais da lay dagg non yow boo ñëwee da lay dagg laisse koy tekki rek li ko conseil bi wax mooy sàccum ndënd yomb na waaye foo ko tëggee moo jafe date bi di datu peuple bi. mu nekk date boo xam ni. musul soxla boobu amatul date boobu le 25. waaw waaw waaw moom laa wax. léegi dañ ko ne mu jël beneen waaw moom laa la wax. parce que dañu constaté ni matériellement techniquement. waaw mënatul nekk. waaw moom mënatul léegi comme man loolu du sama liggéey. moom laa la wax yow yow autorité nga jël euh, nga jël date wax ko dans les plus brefs délais. ah kay non ah kay. ah waaw waaw xool nga dama liir ko ah meilleur délai mooy la. waaye meilleur délai ak bref délai ma ne la dañ leen ni jëlal rek date waaye dañ leen ni jëlal date jëlal date rek lañ la wax. dañu ne la jëlal date. xam nga aussi mais vraiment. léegi meilleur ak bref ak ay des qualificatifs qui n'ont pas tout mais dafa am benn waay boo xam ne. dafa am benn waay boo xam ne ëllëg mun na doon kilifa kilifa mii toog nii nekk président de la république moom la ñu fal ci benn diir diir bi jeexagul. ci situation bi xew léegi nii moom moo war a organiser mbir moo tax ki ko war a wax wax na ko ko te wax ko imposé wu ko dat wax ko defal dat sàngam ñan ñooy wax dat yi mooy homme politique yi ak ñi bëgg Macky Sall ak ñi contre Macky Sall mais kilifa ki kooku kooku boobu ngeen wax noonu moom daf ko ne yow demal nga jël dat bi yow moom la loolu la ko wax mais yéen am ngeen droit wax seen dat ku la neex mu waaye suñuy dat suñu machin tout ce que way leen ko def leen lu leen neex mais moom yàlla xam ne joxe seen xalaat d'accord naa man mi man man dama xalaat ni man war na war na toog koy bañ naan tànnal da di ko. mais xam mais mais mais xam sax mais parce que on est en démocratie non déedéet non non dama ne wax ñiy jox ñiy wax euh, pour ay date ñooñu ay homme politique la ñu non déglu ma déedéet kese pas kese dama yeggali société civile lañu ak ay nit ñuy xalaatal seen bopp waaye am nañu ci droit parce que on est en démocratie ku nekk da xalaat par rapport ak li nga xalaat mooy gën ci réew mi waaye celui qui a le dernier mot pour li gën ci réew mi moom te ñu fal ko pour loolu ba diir ba jeex kooku benn nit la. kon lu muy kon lu muy élec pour muy dialogue. li mais xam moom moo xam. moom xëy na nee moom xëy na nee na xëy na nee na moom moom man nekkuma ci moom xëy na moom nee na dans sa tête moom balaa moo joxe dal il faut mu am yu mu xam euh, te man loolu sax dafa rafet kilifa bala ngaa joxe bala ngaa joxe. Euh, euh, euh, waay ay ay ay bi rek la ko nit yi wax non dama ne non dama ne kilifa laa wax kilifa. man pour man kilifa normalement muy Macky Sall muy keneen bala ngaa ci situation yu demee nii booy jiitee mbir muy société muy réew muy lu kenn xam muy kër des fois da ngay am dangay ngay peut-être xaj na man li ma gën a bu mu la gisee ngay laaj ñeneen dinaa gis sa côté humilité. Hmm. ba xam xaj na yaa ngi ragal juum moo tax ngay dem laajte. ngay wax ay nit ñu waxtaan parce que yow yaay kilifa bi waaye xëy na yow mëtle woo ci lépp parce que nit kese nga. ay rapport bi duggee la juum am. non non ndax si la yëpp déréglé mais xam mais comme déréglé na te am na yoo xam ne dafa war a feeñ. moo ko déréglé. non moo ko déréglé. ah moo déréglé non déedéet non jël décision. non boobu ko jël woon mais kër mais kër gi mais aram aram kër gi. donc c'est bien moo ko déréglé yaa déréglé moo mais réglé ko mais mais kër gi boo amee problème kër gi maanaam ay tàkk-tàkk yu wàññi am ci kër gi. Ah. mais bu ko neexee mu mu mu réorganiser waat kër gi. loolu du ko def pourquoi du ko def mais moom la fal ñun am nañ droit ne ko ah tàkk-tàkk bi kat garaawul war warul woon tax ngay kii ñu ne ko tàkk-tàkk bi garaawul. léegi mais li moom mooy ah. président de la république ah, ñun mën nañ nekk di wax lu ñu neex am na ñoo xam ne nañ le deux am ñoo xam ne nañ le huit fi nekk di wax lu nu neex. waaw waxewu man waxewu ma. non non lu ñu neex mais dans le sens lu ñu xalaat. ku nekk day joxe xalaat dafa xam lay poser question rek. man damay dellusiwaat si lii man nekkuma si commentaire. non d'accord naa du yow sax laay waxal de. ci ci ci li nga xamante ne moo xam. par rapport ak conseil constitutionnel li fi jot a jaar ak li nga xam ni mooy. mais gis nga quatre ans yi ñu tegoon. aram mu tëb ko mu génn ko. aram xam nga problème xam nga bu génnee mu ne léegi damaa bëgg a waxtaan te moom génn na ko ba pare. waxtaan boobu noonu la ñuy wax quelle est la pertinence di waxtaan ci loo xamante ne. Mm-hmm. yow boo tëjoo sa néeg sax. waaw jël décret. waaw boo mais lu tax mu jël mais man su ma nekkoon place am man su ma nekkoon place am laa man su ma nekkoon place am su ma nekkoon place am xaw ma dinaa dialogue wala déet waaye dinaa wax avant ma koy def te dinaa jël temps wax ko dinaa bàyyi ay nit ñu waxtaan ma xool ndax déggoo nañ ci ay kàddu par rapport à la situation dinaa ko def. léegi Aliou dinaa xaar léegi bu boobaa nag. ci laaj tontu mais. boo gis naa ngeen joxe exemple ci ay football bi. non mais non mais mënul nekk xam mënul baax xam lu tax mënul baax parce que lii match bi dafa commencé gul. Hmm. match bi commencé gul. non non non. <laughs> dégg nga lépp xam nga match non match bi match bi jeex na bu yàgg. Ah, non si si match bi commencé laisse moi continuer. Ah, xam nga lu tax match nga ne match bi commencé wul. lu tax xam nga xam nga bii nii exemple bi ngeen joxe Sénégal Côte d'Ivoire sànq ce n'est pas un bon exemple xam lu baaxul parce que boobu ci biir match bi la arbitre bi defee erreur mais bii nii. avant match bi la ñu constaté ay erreurs. non ci biir match. non de non de xam le processus a déjà démarré. match bi li ñoo kon ñu doon jël décision boobu. waaw ah, déglu ma yow tamit. ci biir bi match bi campagne électorale. déedéet déglu ma rek déedéet. de non campagne électorale c' un rendez-vous parmi tant d' autres. ouverture liste électorale waaw ah, la mooy ouverture ouverture de match ainsi de suite. Ah, électoral mais déglu ma yàgg commencé non déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma yaa ngi tontu ah, ah, la euh, ubbi ubbi campagne élection présidentielle compétition mais ubbi compétition mais benn la rek ah, mais dama ma déglu de di nga ma déglu na jàllal non non d'accord naa mais xam nga mais non non d'accord naa non d'accord naa mais xamul tax non li sax dafa neex xamul tax <laughs> parce que aussi parce que da ngay gis nit wax ba pare parce que wax mais il m'a parlé d'ouverture ouverture xam nga dama ne élection présidentielle élection présidentielle commencé wul trois mois ci ginnaaw kañ la xam kañ lay commencé. Hmm. jour bi élection yi di commencé ak ñi war a football joueurs yi mooy jour bi ñu commencé taxaw di préparer wu def nit ci kaw terrain bi pour football. déglu ma rek parce que campagne électorale déglu leen ma. match euh, euh, élection présidentielle yi kañ campagne commencé. kañ la kañ la kañ commencé campagne pour ñu xool bu ñu campagner desee benn fan. ñu noppalu le lendemain gars yi dem voté. li nga wax nii day mel ni rek nga ne ma Sénégal daa match officiel. waaw Aliou Cissé xëy gars ku nekk wàcc sa avion mu leen kaa la ñuy joué. kenn du entraînement amul galop d'entraînement amul dara. dañu ñëw rek ah déet parce que boobu. non ah, non dinañ ñu fulaal avant match bi di mais galop d'entraînement pour nga pour lan la. processus pour se préparer. pour jour élection yi. mais mais loolu loolu campagne électorale mooy galop d'entraînement dëgg déedéet parrainage bi. déet non ban mooy mooy ñiy bokk ñiy joueurs yi non joueurs yi ki leen di choisir au dernier moment mun na changer joueurs yi entraîneur bi sélection bi au dernier moment mun na changer joueurs yi mun na toog ba 24 heures à l'avance mun na toog depuis une semaine mu xam joueurs yi war a football yëpp mun na ne sangam ak sangam nit sangam ñooy bokk ci match bi tey. Hmm. mu décider ko une semaine à l'avance bu ko neexee mu toog ba au dernier moment mu def ko parce que tant que match bi commencé su ko neexee. d'accord yow daal match donc man match bi jour match bi jour match bi arbitre bi ngeen doon wax noonu bu defee erreur ci biir match bi là c'est c'est différent dootul benn te. non béyu Côte d'Ivoire ñun kan bi. non déet non dama gis ngeen jox exemple boo xam ne non dama gis ngeen jox non parce que da ngeen jox exemple boo xam ne baaxul c'est pas une bonne idée. ba pare euh, fii affaire du affaire takk ku ñuy takk fii sëy bi am na ba pare. Euh, déglu ma rek <laughs> non sëy am na ba pare xam nga lay problème bi mooy problème mooy ci biir sëy bi dafa am ay problème yu war a lijjanti nan lay war a lijjanti sëy bi pour tas pour sëy bi bañ a tas déet <laughs> déet sëy ko yaa joxe exemple am na cat amu fi déet sax ma jub Aliou Aliou sëy bi am na ba pare Aliou ci biir ñu ngi démocratie ñu ngi organiser sëy daal dund bi sëy Aliou kilifa déglu ma Aliou taw rek boo xool sëy baa ngi ci sëy ba sëy daa war a jeex le deux non non non non déedéet donc fay moo war a am. kii moo war ay ñii naan nañuy fay ñu seet léegi nan la ñuy def. Aliou ci mbir mi ci biir sëy bi. Aliou xam nga sëy xam nga. tas na a jeex le deux. tas dagan na déglu ma tas dagan na. tas dagan na tas dagan na. mais day doon commencé. fi am donc loolu mooy sëy bi élection bi ñun ñun ñu déglu la la président président Macky Sall moo léegi si biir bi non si biir sëy bi non président bi amul la personne n'a pas d'importance président institution la balaa nga doon xam loolu mu jóge fi le lendemain xoolal keneen mooy am importance bi <laughs> importance présidentielle boobu keneen la donc mbir mi ci biir la takk amoo fi

dafa mel ni dafa mel ni loolu loolu loolu du moom <laughs> te kooku du moom. day maam de. xam nga eh, xam eh, eh, la boo ko dal xam nga lu daal grand Aliou Sow. wax nga dëgg première bi si dëkk bi war naa dem. xam nga a <laughs> yow nga nekk président Sall di wax non non non Aliou xam nga lan moo ko dal. question kii bi tontu war ngay ne war ngay ne ko dal. war gaynde <laughs> gaynde boo ko waree. dina <laughs> taxaw mu tëdd. <laughs> non xamuma lenn la boo ma jaaxal. xam nga di défendre loo xamante ni fii ba suba ci ginnaaw ngoon. non ma défendre ma ko non xoolal euh, kilifa. Ah. alxuraanul karim je te jure. non je dis ma xaw xaw ma dama ma ko sax ma jaaxal ma xam la mooy sama problème. Ah. man pour ah, mi dafa yàgg di am je te jure ma kii la rek billaay. xoolal xam xam xoolal xam xaw ma la moo ma jaaxal ah. Euh. man c'est que ñun ah. man man pour man c'est l'occasion ou jamais hmm. comme man gëm naa man damaa gëm ni Macky Sall ñemewul def leneen hmm. boo gisee ma leen di wax ak ni comme noonu laa gëmee woon ni Macky Sall xalaatul naa day def trois billaahi dama ko wax ba sonn mais xalaatul sax naan day def troisième c'est impossible parce que dëkk bi loolu c'est même pas la peine foofu moom du ma ko du naa ko tegee ne te yàlla def na ni loolu laay j'avais raison parce que j'étais persuadé que ni waru koo ñeme même bu nekkoon ci xolam man sama yoon nekk ci bu nekkee ci xelam sama yoon nekku li ma na ko te dina ko respecter parce que loolu mooy yoon parce que presse la gis nañu expérience bi ñu amoon ak Abdoulaye Wade man loolu leeroon na ma pour cas bi aussi axam c' est exactement la même chose dans ma tête dans tête xam nga man bi nga leen wax ni gis seetlu woon sax bi wax ni ma leen di koy wax. Mhm. parce que man phrase boobu parce que man quand les gens quand quelqu'un parle comme ça damay xool li ci ëpp importance. li muy wax pourtant bëggoon naa la naan la. nga naan ñaari option moo mën a nekk. mooy li nga ni moom nee na maam mission s'arrête le 2. d' accord wax nañ ko bàyyil nañ ko léegi wax ji mooy ci diggante le deux bi la ñuy sàkku ci moom date. Hmm. te waxu ci mu ne il faut consensus jaloo pour ñu am ko léegi nga ne ñaari option hmm. beneen option mooy su dee ci diggante bi dat amu ci. mission war a arrêté le deux. Hmm. qu'est-ce qui va se passer su fekkee ne toogaatu fii yooyu yaa ngi wax beneen option. laanaam loolu mën nañu si waxtaan après mais comme du woon je ne voulais pas en dérision. moo tax ci loolu laanaam loolu après mën nañu si poser question peut être bu ñëpp jàllee. donc ngeen laaj wax ci mais juste rek pour wax benn affaire gis nga. Euh, euh, euh, sa deux minutes la kay nga cof. di ko ah cofal. waaw ma cofal. waaw wala nga ah. li Coro Mandela ah, naan Coro saa yu émission bi jeex bañ na jeex chaque jour <laughs> itte ba ñuy tëj woon technicien bi naan yaa na ci journal bi xam Coro ne ma sof. ma saf si tuuti. <laughs> gis nga. Aliou safal xam xam nga la moom su sof xam nga lu may def <laughs> gis nga gis nga man ah man man leen rek ma intéressé. man pour man dans ce pays là ah moom situation bi ñu toll nii a euh, bu bu nañu éviter ah te j' que ni je n'aurai pas raison nañu éviter di taf tafe mbir yi léegi nii a yàlla moom moo xam lu tax problème yi yëpp su jub feeñ te bu ñu gis nga bu ñu góor góorgóorloo tuuti nañu fexe ba lu lu lu bari lu yàqu woon ci réew mi dootu fi amati. te pour man pour man non dégg nga non dama ne dama xoolal man ci biir dialogue boobu ci biir dialogue boo gisee ma ne wax sànq dafa tuuti man man foofu laa xaw a am tuuti sama yaakaar xaw a tas tuuti bi mu waxee ñaari fan parce que man ah honnêtement man j'attendais même kilifa diine yi même kilifa aada yi ci réew mi ñu choisir leen ñu toog waxtaan pratiquement man man pour man man weer doyoon déglu ma rek de wallaay pour réew mi 60 ans d'indépendance kilifa on a eu beaucoup trop de problèmes on a eu beaucoup de gens beaucoup de tricheries lépp loo xam ne dañ ko war a lijjanti définitivement ñu verrouiller ba nga xam ne parce que man gis nga ah li xam la la lay tiit te je vous assure ah ko en reparlera je voudrais nga ñu ne ma grand finalement gis nga juum nga quoi gis nga man bugguma beneen président ñëw gis nga quand tu es assis sur le fauteuil tu es complètement différent te dama dégg aram ay gaz yu garaaw yu am ci réew mi gis nga est-ce que tu sais que am na ay nit ñoo xam ne am na ay ay bailleurs yoo xam ne ak ay borom daraja alal ci réew mi ci àdduna bi parce que man aussi moi moi j'ai bon vraiment <laughs> fii on peut pas se euh, kii euh, moi moi j'ai beaucoup d'amis j'ai beaucoup ci àdduna bi te xam nga du may bëgg di wax nii parce que ça craint mais maintenant man dama am ay ay nit ci àdduna à peu xam naa àdduna bi nu muy fonctionner ak ñiy tirer les ficelles et je vous assure que même au Sénégal nii ak suñu pétrole suñu gaz bi man li ma ci xam bés boo leen buggee bés boo leen buggee dëgg dëgg dëgg <coughs> ma jéngu ma wax ko parce que xam nga lu tax. am na ñoo xam ne Macky Sall toog moo leen arrangé ba après après mois de juin am na ñoo xam ne xalaatuñu te ñu ngi siy def àdduna ak si biir ak seen i alal. pour que Macky Sall dem avant parce que am na leneen lu ñuy sóoraale ñoom. ci yeneen intérêt divergent wallahi te bu fekkee ni li may wax li no graw mais xoolal je vous je je non Aram est-ce que dégg nga li ma wax ni non dégg naa mais président day dem. ma waxuma loolu non non ambassade des États-Unis sax ñu ngi réagir euh, te naa ci ñëw. mais d'accord non dara man man man man man man man euh, man man amuma problème sérieusement euh, je pense que ni ci dialogue ba mu nekk am na loo xamante ni la pertinence du dialogue. Euh, nga kaay ma wax la tey fii ma wax la leen fii gis nga danga nga wax léegi am na loo wax ne ak à qui profite la situation. actuelle actuelle la situation actuelle kenn kese lay profiter muy Macky Sall. ci sais comment tu sais comment parce que bu leen fàtte ni Macky Sall. fii ba le 2 avril il reste notre président de la république mm-hmm. suñu problème nekkatul loolu moom mu taxaw xamal xamalaat boppam ni ko ni mission moom dafay jeex la 2 avril donc loolu c'est pas une information tout le monde le savait je me répète euh, candidat yi temps yële dañu toog ñoom bi ñu liiree la situation ñu xam ni actuellement toog xaar Macky sàll mu tànn dat mën na ko tendeefal ñoom ñu provoqué loo xamante ni il faut que ñu tànn date avant le 2 avril boobu <coughs> te ay la yowoon ala kulli xaal moom lenn moom nangu naa ko te gëm naa ko ñu toog di tànn date graawul di ki seppi loxo Macky sàll il faut ñu boole ko ci ñu toogandoo tànn date lool je suis d'accord mais dialogue qu'on ne parle pas de dialogue. d'accord ci dialogue loolu kay waxtaan la. xam nga xam nga Macky bu ne dix-neuf candidats yépp gisuma kenn ku ci bañ ñu waxtaanee date bi pour ma mën a def li ñuy woowee sama passation de service jox kiy gagné. <laughs> mais loolu kay kan moo koy bañ ban candidat moo koy bañ say nit ñi xamal lan la booy seen problème mhm. ci leen ki Sall daan woo kaay leen ñu dialogué balaa ñuy dem élection ah ñu baree baree baree baree bari dem dialogué ci mu jur yuñ teggi seen kaw Ousmane Sonko ne man dialogué wu ma parce que dama gëm ni dialogue bi sincèreul mais dem leen dialogué man lu ma ci goobe gar ko ña demoon jalage lañ ci goobe nañ ko gar bu ñu gën bu ñu bu leen soo ko gën a gore bu jalage ji woon amaana heure bi leneen la ñuy wax kenn du wax Bassirou Diomaye Faye mais pour nekk ci logique am gis nga réew tamit dafa am nu muy doxee il faut que Aliou Sow tamit ñu comprendre ni que ni politique yi moomuñu réew mi. d'accord na ñoom ñooy laa minorité Aliou fii dara xew fii amuñu problème ethniciste. amuñu problème ñun sérieusement coow mën na bëri jàppal bàyyil mais je ne pense pas que ni dinañ fi yeewu un jour ñu ne xalaatuma ko li ma gëm la que ni joolaa yaa ngay reyanteeg séeréer yi wala tukulóor yaa ngay reyanteeg du fi am ci kàttanu yàlla ak baaxam non xaaral rek un pays boo xamante ni yaa ngi koy diriger di diriger un peuple très démocrate très démocrate c'est le peuple qui est démocrate mais pas les politiques un peuple très passif un peuple très patient, un peuple qui donne toujours une chance, un peuple qui buy dimbale sax koo xamante ni daf ko teg lu metti mais chaque fois ce peuple l'aide à ce qu'il trouve au moins une porte de sortie wala une fenêtre de sortie man de li ma waxoon Macky Sall laa koy waxaat fi nga tollu nii ci game bi bul accepté waat ndax ñaari sortie kese la dese. dialogue boobu fenêtre wala trou de souris. waxtaan ngeen ci boobaak léegi. fenêtre. wala trou de souris. laaj la de maa ngi ñëw. laaj la de. maa ngi ñëw j'arrive maa ngi ñëw yéen a ngi doon gëstu ci loolu ndax décidé wu ngeen fa ngeen di ngeen dem wala buñ leen woowee. xam nga ndey aram man li ma gëm ba gëm ko mooy li Abbas di wax loolu laay soutenir dafa am loo xamante ni ci lañ toll di waxtaanee mooy kañ la ñuy jàpp date pour man loolu les dix-neuf candidats. ak Macky Sall wax nañ mun a toog ñoom kese waxtaanee ko ñu xool benn date loolu moom mais buñ ci boolee Abbas day guddal jéem. buñ doo def. lu ma fay def ndey arab xanaa toog nekk kon kon euh, est-ce xalaat ni waa Pastef dañu am candidat bi. non Pastef non waaw ñoom Bassirou Diomaye est-ce que dinañ dem. mais ñoom Bassirou de ñoom Bassirou <laughs> Bassirou il est candidat bi. non non ci dialogue bi laa du Pastef man dégguloo li ma lay wax du dialogue de. kon kaay leen ñu toog waxtaanee une date ak kaay leen ñu dialogué bokkul c'est-à-dire bu ngeen fi tuddee dialogué mais xam la mu dialogué non bu ngeen fi tuddee dialogué rek maanaam daf koy <laughs> delloo ci reprendre ah, processus te tasaat carte ah, gi baatarewaat ko non mais li ngay wax ni yow ma ne kilifa waxtaan kilifa déglu ma la non cest à mooy li ngay wax ni yow waxal Sénégalais yi lan mooy dialogue mooy yow li ngay wax ni mooy kaay leen toog waxtaan mooy dialogue kaay leen ñu waxtaanee loolu mooy dialogue kaay leen ñu wax waaw d'accord d'accord kaay leen ñu waxtaanee date bu ñuy amal élection ak kaay leen ñu waxtaanee réew mi bal la ci Macky Sall ci bal la woote. mais booy waxtaanee édifiez moi xoolal ñëw ñu kaay leen ñu waxtaanee réew mi. wala kaay leen ñu waxtaanee. ci ban date la ñuy. bu doon date kaay leen ñu waxtaanee date bi. kaay leen ñu waxtaanee date bi. mais dafa ne loolu kay wax dëgg yàlla ak yonent bi. dafa ne loolu jarul jarul ñu waxtaanee. date bi waaw kon nga woo téléphone. Aliou xaaral Aliou xaaral Aliou xaaral. date bi waaw mais oui surtout sax Aliou xaar Aliou xaar jour boobu xëy lu bari dana feeñ. non non j'ai posé une question. mënut a tëj parce que beaucoup comme moi li mu wax mënut a tëb rek. waaw ne maa jàpp tel jour. waaw waaw loolu faaw nu waxtaane ko. faaw ñu waxtaanee date bu ko waxtaanee. waaw ba jubóo ni bi sàngam la. waaw ñu jëm ca. waaw loolu kay. pour loolu nag mu am man damay tàccu sax ah, Macky Sall. pour une fois pour une fois. waaw xam nga loolu weesu nan. waaw mais loolay problème bi waaw waaw waaw waaw comme weesu nan loolu xam nga mea culpa. waaw mea culpa mun na am. rëccantiku mun na am. xam nga def na na président la waay il a les rênes du pouvoir il xam nga def na xam nga def na yoo xam ne ko. xam nga def a la perte de vie humaine de quatre <coughs> loolu. parce que loolu tamit nag. Euh, <laughs> bakkan dafa fort loolu moo ko war a choqué xam na bakkan dafa fort mais am na 17 yu jaar avant cette fois ci xale yu dee woon aussi avant. Euh, kii euh, Aliou Sow. Hmm. mille ëpp na sax 17. man damay man damay jàpp ni man damay jàpp ni fii 2012 ba tey jii nii képp ku fi dee. Macky Sall. nu ñu déet. déet bul ma yóbbu bul ma yóbbu bul ma kii de dama ne képp ku fi dee ni ñu téye réew mi moo dégg ñu naan Macky Sall assassin quoi assassin mooy ku rey quoi képp ku fi dee ni ñu téye réew mi moo la naqadi <coughs> képp ku fi gàddaay tamit ni ñu téye réew mi moo la naqadi képp ku découragé ba toog ne yas ni ñu téye réew mi moo la naqadi képp kuñ fi tëj ci kaso ni ñu téye réew mi moo la naqadi nga génn taxaw wax ko loolu man lu ma gëm. bu dee taxaw wax rek. loolu kon d' accord naa. waaye Macky Sall rey reyul moom Aliou du samay wax du suma parole. Euh, Ndeye wax dëgg yàlla ak yonent bi gisuma dara lu aay ci sama mission dafa war a jeex la deux bi ma toogee parce que xam naa Macky Sall dafa rëy au lieu mu toogoon ne ah dama commettre woon loo xamante ne dafa rëy Macky dafa orgueilleux. lii moom maa la ko wax. Mm. damaa toog ma def loo xamante ni du ma tooñ sax du ma tooñati naan ay dañ ko ci dugaloon mais damaa toog peut-être ci sama coobare bopp wala ci sumay caprice ma def loo xamante ni. Oh. ah loolu kat après yëf yi dafa delluwaat ci sama kaw parce que conseil bi Macky ki le président de la république la ba keroog la deux dañ koy jox titre boobu titre bu mag boobu kenn du ko xotti moo tax conseil ne ko ginnaaw ba nag yow. mi nga xamante ni une institution bu toll ni conseil constitutionnel ñu waxtaanee suñu constitution ñu jàpp ni datu élection le vingt cinq février lay doon ñu arbitrer génne suñu ay candidats yi nga xamante ni euh, sénégalais yi ñoom la ñu wóolu pare na leen ñi nga xamante ni gisuñ ci ñoom kenn sikk. xanaa Rose Wardini ah, xanaa Rose Wardini maa ngi ñëw leeral ko ñëw maa ngi ñëw xanaa mennum Rose Wardini Wardini bi ñu échappé te bi mu ñu échappé. am na loo xamante ni dimbale waat nañu ba Rose Wardini boobu feeñ Rose Wardini ma jaaree fa sax félicité waale waale ko parce que dëgg yàlla. gaawul voilà léegi mun ngeen félicité Rose Wardini mais ñeneen ñi war a dugg du ñu leen félicité. waaye ku warul dugg dugg. dafa génn moo tax quoi mën ngeen félicité ko. ma ne xam nga kan laay félicité. bu toogoon day am problème. man su boobaa xam nga kan laay félicité. ki nga xamante ni dañ ko xañ sa candidature mu ànd ak ngoram ne garaawul. te dinañ ñëw ci moom ndax am na lu ci président. waaw léegi nag. Mm-hmm. Euh, léegi nag am na sax ci loolu nga wax noonu am na sax benn candidat bu ñu wërwëroo jamono yi de. président toogaat ba xam ni président toogaat président toogaat ba xam ni yëf yi fi mu ne nii moom la ah <laughs> mu am courage am peut-être. jëf moom la quoi yow wóor na ni loolu yoo xalaat quoi loolu moo fu ñu nekk yaa ngi xalaatal. ci bopp perturbation bi. mais Macky Sall mooy perturbation bi. waaye yow yow Aliou Sow perturbation bi. waaw kon non kon kan ci benn situation. bonne situation lañ toll lii nii kon Macky Sall dafa ñëw def ko nii parce que ko neex. waaye yow Aliou Sow guerre nekk ci guerre. Mali nekk en pleine guerre Macky Sall dem na leen organiser leen élection. ñun nekkuñ ci guerre nekkuñ ci dara yow Mali ngay wax ba tey yow Mali joxe exemple ñun ci ñu nekk. yow Mali ngay joxe exemple ñun ci lan la ñu nekk un supposé un supposé. kon Macky ko def tey kon. candidat un supposé sénégalais bu bëgg a nekk candidat mëtalewul li mu war a mëtale ñu rëkkale benn nit boobu. loolu wax loolu kese ma kilifa du xam nga leneen lu ñëw sama xel léegi mooy. Euh. xoolal pourtant li raison yi nga xam te ne entre autres yi président Macky Sall invoqué. pour abroger décret bi euh, bi bi euh, convoquant le corps électoral mais ay soupçons de corruption la ñu wax ay connexion ay nangam mais xoolal fi ñu toll nii xam nga lan la ñu wax nañu jàpp date léegi loolu yëpp nga xamante ni moo tax. Ah. lu ne annulé ba ñu jàppaat le vingt cinq. waaw léegi xoolal yooyu yëpp dafa naax saay jamono ji. ku loolu dafa naax saay. non ka non xaaral. yow da nga yow jàllale ko kon dañuy ñëw rek ne laay wax. il faut que xoolal wax dégg man processus bi laay wax c'est-à-dire xam nga laal bëgg wax mooy. Hmm. loo xamante ne ah, même boo ci amoon lu la leer. su doon même ci ñaari juge yi la su dee yoon la ñuy wax rek. amul benn impact su dee ñoom ñooy war a délibérer ndax juróom la ñuy doon. merci beaucoup non mais non merci beaucoup. non il s'agit il s'agit de la crédibilité de l'institution. waaw dafa naan du ba tey xoolal du foofu. yow ci xam nga waaw dafa naan xam nga waaw xaar xaar. Aliou Aliou xaaral Aliou. ñun ñaata lañ ci plateau bi defal ndànk uh-huh. xoolal ñun ñaata lañ ci plateau bi duñ juróom juróom-benn ñaata lañ waxoon wala juróom-ñaar ñaata lañ waxoon a doon waaye léegi bu ñu xëyoon fii fii nii ñu jékki-jékki on devait ah. être sept a fait ma ah, élection présidentielle ma bàyyi woon rek ma daaneel nii rek ma dem xam nga man Aliou Aliou Aliou man li ma la wax xoolal yow légaliste nga man li ma la wax yëpp man waxuma di sànni dama ni man damaa des ci li nga xam te ne même bu ñu werantee da koy woote oo oui waaw moo tax ma lay tout le temps ma lay renvoyer nag bu ñu nee légaliste moom wax dëgg neex yàlla lu ñu werante werante bu teg si taxaw war nañoo départager bu dee nag amuñu lu ñu mën a départager mooy dañuy wax rek di sànni après du ñu am solution alors que dañu war bu ñu waxtaanee ba pare ñu ut solution solution bi nag mënuñu ko ut fenn fu mooy li ñu boole takk ñu te teg si mais Aliou léegi ma daane mais dafa ndànk Aliou. léegi ma daane léegi teg si yooyu. mais Aliou doo wax ne ma. conséquence ne bu ndee juróom ñaari sage bu ci ñaar manqué juróom yi mënuñoo délibéré. waxuma loolu de. léegi Pa ma daaneel man bokkul waaw dafa ndànk. bokkul maanaam dama la la décision a été prise à l'unanimité. léegi Pa Ousmane ma daaneel Aliou Aliou damaa bëgg relever lenn rek. lenn rek laa bëgg relever Aliou lenn rek laa bëgg relever xam mooy la dès l'instant qu'on parle de la crédibilité yaa ko wax léegi du processus électoral qui devrait être en tax ba kilifa jàpp que ni fi ñu ci toll nii kat am na lu ci manqué mais loolu ci boppam la amuñu firnde amuñu firnde yow amoo ko. da nga am ci dialogue dafa dànk man dialogue nga may léegi dialogue boo xam te xamoo lu ci xew ñu taxawal processus mais ça c'est un précédent dangereux. su dee ni rek bu ñu yuuxoo fenn ñu ne taxaw nañ xool. loolu mosu koy am ci depuis